contexte Covid lañ ko def ñu baree bari ragaloon tool yi bari woon lool waaye nag sëñ bi ci ñaan yàlla sax dogal mbas mi mel ne moom dafa war a jaare dem kon nag tey ci loolu lañ bëgg dellu ci fi nga xam ne fi lañ fi fi jaar lépp ci mbooleem aspect yi nga xam ne moo aju ci wàllu organisation bi moo tax kàddu bi du gudd ndax li ci ëppoon solo ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénkoon def nañ ko ba tënk ko dañu leen di may leeral leen ko leeral ko Sénégal ñu xam ne gannaaw buñ màggale ba noppi ba am lu mat fukki fan ak juróom ñaar wala fukki juróom ñett nga xam ne mbas mi moom màggal gi amul ci benn impact nu meloon dafa gën a wàññeeku professeur dana ci ñëw léegi yeneen yi nga xam ne moom concerne organisation bi tam ki nga xam ne moom la ñu dénk dëkk bi mu seen ab te moom itam mu yoroon pàcc bu rëy ci biir organisation màggal bi ci wàllu maire bi moom itam di leen di jox kàddu mu dikk moom itam leeral askan wi fi nga xam ne dina si jaar bu noppee nag nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu jëwriñ ci liggéey bi di Serigne Ousmane moom dina ñëw jaar ci mbooleem commission yi liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey bala ñëw sëriñ Bass di di sant boo nga ne ci biir kër gi sax solo solo kon nag li nga xam ne moom la ñu def rek moo di dañu invité professeur Lamine Gueye euh, mu dikk man ko ma amoon ma ci wax ndax dama tax wax lépp foog naa wax naa ko jiitu màggal ga wax naa ko dinaa màggal bi kon tey jotaay bi ñoom lañ ko organisé ñoom ñoo ko moom ñu amuñ ci benn kàddu xanaa nag di leen di leen gërëm di ñaan yàlla rek mu def ko ay at yu bare bare bare bare te sëriñ bi wàll nañu ñu liggéey asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh leen di nuyu waa comité d'organisation yi fi teew yëpp jël nuyoo boobu teg ci loxo sëriñ Ousmane Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur bi mu doxalin ñu ko xalifa général bi Mouride ak euh, sëñ Bassirou Abdou Khar moom mi président bu comité d' organisation Magal yéen ñu ñu yéen ñëpp euh, waa presse bi ngeen ñëw tey jii ci restitution évaluation comité d' organisation Grand

mooy wane ne fagaru ak fekk képp kuy ñëw ci màggal bi wala nga dëkk Touba ba problème mu wér-gu-yaram problème santé lu la sonal ci biir màggal bi màggalu ren bi nag comme ni ko sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma waxe dafa nekkat encore ci contexte sanitaire bu xaw particulier muy euh, mbas mi nga xam ne ci àdduna bi yépp la law depuis mars 2019 ñu màggal ci daaw euh, yàlla def màggalu daaw bi amuloon benn njeexit ci mbas mi ren bi màggal bi jubsee mbas mi yéegoon trop Sénégal ba pare it euh, en plus loolu mu yéegoon ci nombre maladie yi mu mais aussi ni nga famille ni qui donne ci doon ñàkk seen bakkan ak cas grave yi nekkoon na benn préoccupation Sénégal parce que chiffre yi est bon leneen li nous mu xaw a particulier aussi mooy variant yi dañ ci amoon benn variant une autre wax variant delta bi nga femme de sax moom moo doon expliquer difficulté yooyu donc bi magal bi c'est évidemment ñu bari xawoon nañ ci jaaxle ci loo xam ay millions de personnes 4 millions 5 millions de personnes ñooy regroupé ci quelques jours donc c'est le premier contexte sanitaire wante unité bi xamoon na ne contexte bi aussi contexte nawet la et souvent épidémie dañuy tax yenn contexte yooyu sax boo xoolul bu baax am ci expérience da nga koy négliger or loolu ci suñu pays bi suñu pays yi yeneen réalité la yoo xam ne daanaka moom mas ñoo yem wala ñu ëpp ko doole mooy di organiser événement ci biir nawet fii nga xam ne ndox mi day bëri mu tàng or ñaari façon yooyu yëpp ñaari élément yooyu yëpp problème sanitaire mën na ko indi euh, magal bi ñu organisé ko ci foo xam ne euh, hivernage installé woon na déjà ndox mi xaw bëri ci gox bi yëpp mais aussi tàngaay bi amul yooyu dinaa ci ñëwaat conséquences yi mu am ensuite forte mobilisation pèlerin màggalu ren bi aussi képp kuy observateur seetlu nga ne nit ñi bëri nañ trop mais aussi dañu teel a ñëw ba pare xaw a yéex a euh, xaw a yéex a dem ce qui fait que unité évidemment travaille avant le magal comme il pendant le magal et aussi bien après le magal sur le plan stratégique nous sommes, aussi les partenaires du comité d'organisation et en premier lieu le gouvernement qui est le premier partenaire du comité d'organisation euh, magal du magalam et sur le plan de la santé, évidemment, c'est aussi le premier partenaire par le ministère de la Santé, par la région médicale de Durbel, mais aussi le district sanitaire de avons les moyens humains et matériels nous déployés. déployé résultats yi nga euh, contribuer à parce que santé question moyens matériels, la ressources humaines la communication donc ce qu'il faut retenir le déploiement de ressources humaines vous savez que l'État état bi 5700 euh, agents le le 187 postes médicaux avancés de loolu permettre une médecine de proximité pendant le magal. def ko les zones stratégiques une unité de renforcement par ses partenaires les moyens matériels aussi étaient très importants ressources matérielles yi nga mais aussi communauté par l'intermédiaire des daïra ce qui fait que ci résultat yi dinañ relater le fait qu'il n'y a pas eu de problème de rupture de matériel quant à la prise en charge ci maladie ensuite l'innovation, yi moy buñu constater constaté que souvent en dehors même ay affaire euh, Covid qui mbass

ñiñ ci war a référé maanaam ñi envoyé ci hôpitaux yi wala ci SAMU bi euh, ñu mën ko teel ensuite beneen innovation importante bi mooy xam nga SAMU national bi nga xam ne mooy tout ce qui est urgence dafa ubbi son son antenne à Touba loolu aussi am na ci solo yooyu yëpp nag ñu boole comme une bonne stratégie de préparation avec le comité d'organisation bi nga xam ne moo validé suñu plan d'action plan d'action unité d'alerte bi kooku aussi am na solo parce que ñun ay techniciens de la santé nous ñoom ngi ci sur le terrain xam réalité yi aussi donc vous pouvez ko partagé ñoom ñu dugal ci seen seen euh, xalaat foog naa li tax aussi stratégie unité d'alerte bi marché ak ses partenaires loolu ci la bokk ñu ngi leen di di leen en plus de cela que les lu am on a eu tous les moyens pour communiquer Donc, le de femmes solo te loolu euh, comme la la commission communication de mettre tous les moyens de communication à la disposition de l'unité mais aussi chaque fois euh, que organe de communication on était disponible pour intervenir donc engagement partenaires unité euh, comité d'organisation mais aussi partenaires communautaires tels que le Revocap je partenaire depuis toujours mais aussi concernant Mbassimi, and Dan Mbassimi, aussi Benen dàq euh, partenaire communautaire ligué au niveau national mobiliser son antenne à Djurgan nous lier mieux. résultat est Covid bi boo xoolee en fin de compte ci biir màggal gi ah, non seulement amul problème mais màggal a amul ci benn njeexit te loolu ñu nous avons insister communiqué il y a moins d'une semaine relaté na bu ce qui s'est passé et nous nous retenons le chiffre 3 mais le chiffre 3 dans le sens très favorable bu dee épidémiologie 15 jours avant le màggal nous ngi autour de 900 cas 15 jours une ko ligé yëpp ce chiffre a été divisé par 3 Nous avons 300 cas autour de la journée même du matin. 300 cas la semaine boobu une bi ñu 300 la nga 15 jours après ce chiffre a encore été divisé par 3 Nous avons 100 cas pendant 15 jours après le matin. Donc, boobu boo sur le plan épidémiologique pour que magal comme daaw wala même de manière plus prononcée que daaw amul benn njeexit ci évolution Covid bi au Sénégal si on regarde seulement chiffre épidémiologie yi boo xoolee aspect scientifique bi moo tax ñu sant tey que biñ génnee communiqué bi d'ailleurs gis ngeen retour yi retour yi moom mooy retouru presse bi mais c'était favorable mais surtout ñun li ñuy surveiller ñun mooy retouru scientifique yi te gisuñu benn scientifique boo xam ne élevé na ci dara loo xam ne lu dul li ñu wax la ñun nag chiffres yi ñu wax ce sont les chiffres officiels kooku moom lu leer la dañuy dem à la source chiffres yi nga xam ne ñi yor Covid bi moom la ñuy publier chiffres yooyu la ñuy jël étudier ko analyser ko sommer ko génne ko te kenn du ci laal dara donc màggal bi amul impact boo xam ne dafa feeñ ci Covid bi lawalu ko li ñu do li ñu mënoon xaar nag mooy mu lawal ko c'était légitime ñu xalaat ne da koo war a lawal mais lawalu ko fenn ci Sénégal mais insister les chiffres yooyu aussi ce sont des chiffres au niveau national du chiffre Diourbel parce que daal biñ ci communiqué ñenn ñi dañu foogoon ne région de Diourbel la wala Touba non c'est le niveau national parce que loolu aussi lu ñu étudier scientifiquement la comité d'organisation l'étude a été faite euh,

qui montre que màggal favorise favorisé propagation Covid ici au Sénégal contexte Covid nous avons ñuy wax Covid de mais Magalgi, en réalité nous avons ñu chiffres nous les collecté nañ ko ba de dañuy consultation bu la a Nous 000 consultations recensées officiellement nous avons ci quelques-uns échappé c'est normal. parce que benn daayira bu installé benn antenne am signalé ko am na yu ñu def ren nag déploiement yooyu moo tax on est à 31 000 maanaam euh, fanweeri junni ak benn malade yoo xam ne consulté nañ leen xam nañ sax pathologie yi leen gën a indi te gisuñ ci woon benn pathologie buy génn yi ñuy gis maanaam feebar yi ñuy gis bu nit dajee lu bëri. daje yu mel ne màggal wala sax ñu eggul ci màggal c'est loolu la ñuy wax les pathologies communes de manière générale mooy ay problème mu respiratoire nga sojo yooyu ñëw mais surtout ay problème digestif bari woon na ci ñoo xam ne it dañoo amee tension wala diabète ñëw suivi wuñ seen régime mu yokk tuuti amoon nañ ci mais surtout contexte nawet bi ak tàngaay bi fi amoon li wër màggal gi jour màggal gi sax tane na température baissé woon na mais li ko jiitu bis bi ko jiitu ak bi ci topp dafa tàngoon trop mais aussi nit ñi li ñuy rang tax na li ñuy wax insolation maanaam les coups de chaleur xawoon na ci bëri loolu moom képp ku doon consulté ci màggal gi seetlu woon nga ne ñi doon miir ak ay bopp di metti parce que dañoo yàgg ci soleil bi ci tàngaay bi ñooñu ñëw ci ëppoon donc Covid ëpp ci woon du tout yi ci ëpp mooy yi nga xam ne dañ koy gis bu nit ñi dajee ci période tàngaay am na aussi effort yu ñu seetlu mooy yi nga xam ne mooy les problèmes alimentaires maanaam euh, ñam woo xam ne sellul na mu war a selle wala denc ba demewul noonu wala mu jóge ci mala boo xam ne yëpp vétérinaires yi gëstuwuñ ko wàññeeku na loolu aussi benn résultat la bu intéressant loolu nag mën na am communication bi am autour du màggal joué na ci li nga xam ne agent communautaire yi dañu wàccoon dugg ci kër yi

di ci sant yàlla rek léegi nag ñun li ñu seetlu woon aussi euh, mooy en réalité Covid bi commencé woon na baisser avant le Magal moo tax on était serein te ci suñu plan d'action dañu inscrire woon daaw ñaan yi ren nag sëñ bi jiitu ci ñaan yooyu te ñun li ñu seetlu bien avant le Magal décrire ko ci suñu document yi mooy le 11 août la ñu defoon ñaan yi wàcc kaamil journée du xasida le 15 août le chiffre Covid yi commencé di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku progressivement ba gis ngeen chiffre yi tey loolu moo tax malgré nit ñi doon jaaxle gis ngeen ci ay articles parce que journalistes yi am na ay ay journaux ay ay revues internationales yu ñëwoon alerté du ma ci cité mais liir ngeen leen ñun tamit lire nañ leen bu doon wax ne c'est un magal à risque am na ci ñaar yu mag a mag yu ñuy liir partout dans le monde waxoon nañ ko mais ñun duñu seetloo chiffre yi fa mu commencé baisser

Il y ci yeneen préoccupation mooy yi ma wax les problèmes alimentaires les problèmes de chaleur les problèmes d'eau au y a des problèmes problème mu mbas loolu laa euh, indi ci résultat